di jéggaluwaat bu baax a baax rek euh, di wax ni problème mu technique la rek waaye euh, mënu ci ñàkk di ziyaarawaat bu baax a baax sëriñu daara boobu nga xamante ni wax dëgg yàlla Cheikh Sabou ture di waajuru Mahfouz ture ñu ngi koy ziar te di ko ndokkeel ci weer bi te du ko balaax bu baax a baax a baax tey nag ñu dalal ndaanaan ci biir ndaanaan yi ah di taggatu yeneenti bi di taggatu xas sëriñ Touba yi sëñ maam Thierno xasida ñu xam ko ci réew mi xam ko ci dëkk bi miin ko ci kër gi aussi tamit ndax dëgg yàlla euh, bari na man ak moom lu ñuy bokk jotaay loolu nag mooy li ma waxoon ci suñu jotaay yële ci ginnaaw rek maak moom du ñuy ñaar kenn lan sëñ maam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni agsi nga sa kër gi bisimilah. auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ngi sant yàlla julli jent bi ñu ngi sant bu baax sëriñ Muntaxa Basiiru yalla nako ko suñ borom yagal barkib suñ tuba bana li bëgg a liggéeyal maam moom suñ borom kat na rek ba mën koo def noonu la ñuy ziare bu baax suñu buntu ak suñu jëwriñ ci dëkk bii di Baye Massamba Jabaay ginnaaw moom dañ ci teg sëñ Sam Camara ak Baye Sène ak mboolem mag ñi ne ci kër suñ tuba gi noonu la ñu nuyoo sëñ Abdoulaye sek mii dëkk fii ci APEX bi nga xamante ne boobu ba léegi moom mooy soññi naan ndax émission bi mu ngi tàmbali ak sama gaay ñi ma andal mhm. ku ci melni ni Omar Cissé mhm. ak Serigne Cheikh ndjay mhm. ak Serigne Matar Mbub rak ñom fo fo ma gis ma dem rek ñu and ñu ngi leen ziar bu baax ak ziar Ifra Ifaka ndax mom, mom dal de kenn ci man ndax ni Ousmane saw mel ci man non la mel ci man bëgg dem rek ci mujjé def na teranga ju bari jox ma da nak adna mag ñi dañuy wax ne teranga ku la ko defal daa bëgg nga ko wax dëgg yàlla gis naa ni muy taxaw yent bi ak jàngal xasida yi ak rawatina sëñ abdoulaye seck bëgg dem rek maa ngi koy wax omar maa ngi naan ko woo na ma yónne ma xaalis bari moom sëñ abdoulaye ngir ñu waajal laytu xadar gi moom ak sëñ way fay ak waa daari bépp ñu ngi ziar ñëpp di ziar tam samay goro ndax bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ma njëkk woo bi ma ma seen émission bi tey tey tey duñ ko tardé. kon maa ngi leen di ñaanal ñoom euh, yàlla na suñu borom yokk seen i man mën yàlla na suñu borom yàggal ma maag seen doom. ak képp rek ci dara gi Sëñ Tuubaa bu ko defee. dañuy wàcce kàddu yi foofu rek. ñu nuyoo ndax des na lu war lu bari ca kanam. ndeysaan jërëjëf sëñ maam. noonu nga nuyoo am na solo waaye noonu la jëlee sunu nuyoo teg ko ci loxo sëñ Mboup moom ah mu yëkkati kàddu bi nuyoo bala ñuy tëj jotaay bi sëñ Mboup ñu ngi lay nuyu di la ñu gis ni rek eh, wax dëgg yàlla ku miin sa kanam rek miinee ko ci kanamu sëñ maam Thierno eh, li ngeen di ànd mooy tax fu ko gis gis la fa ngay sama doomu bàyyi ñu ngi lay bàyyi nga nuyu mbokk yi topp jotaay bi. salaamaaleykum wa rahmatullah waa sëñ Mboup noonu la. mu ngi lay ziar bu baax a baax. di la jox sa wàccuwaay. di sant suñu borom bu baax a baax li nga wax moom noonu lan maam Thierno maa ngi moom daanaka benn lan daanaka foo ko gis rek gis nga ma fa noonu lan ñuy jaaree sëñ Omar mi nga xam ne moom lan àndal su jotaay bi moom tamit ci jaaree sëñ sëñ Cheikh mi nga xam ne moom tamit suñ teer bi di ko mën a ñëw koy jaare bu baax a baax di jaare waa Tiwaawan ba ñëw fekk ci tey di ñaan rek luñ fi jàng yàlla na daje ngërëmu Serigne Touba jërëjëf. jërëjëf sëñ mbokk nuyoo bi am na solo wax dëgg yàlla noonu rek la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci mbokk yi topp jotaay bi ci alxamis bi jot fii ci PT TV nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy kër gi nga xamante ni ndey ju seex moo njaboote daa jaaxaana jaaxaanaa la tëddee mboolem këru diine yëpp bàyyiwul kenn wax dëgg yàlla bu weeru koor gi tàmbalee ba léegi gis ngeen nu muy demee démb rek lañ fi jógee ak si eh, Eva eh, ak seen xaadim laam mu mu doy war lool gaa yi jooy fi lool wax dëgg yàlla tey nag sama téer moo ma abiyee defal ma nii soxna si jox ma koppati baay na ma naa ko ci teg ma daal di dem Kaolack waaye nag dama bëgg ñu xam ni rek dëgg yàlla ñoo bokk lépp waaw sëñ Omar dama bëgg nga wax gaa yi ñoo bokk lépp ah ñun ñëpp benn bunt bu leen ni xëccoo rek waaye buñ egsee ci biir néegi ku ne da ngay xool foo toogee suñu Omar ñu ngi lay di la ziare nga xam ne ñu ngi topp jataay bi ñëpp. Mm-hmm. di sant yàlla di julli ci yonte bi di sant Serigne Touba sunu wasila mm-hmm. eh, di sant buur yi nga xam ne ñoom lañ fekk fii yëpp rek. di sant sunu waajur yi bàyyi ca kër ga. Mm-hmm. ak sunuy soxna suñu mag suñu rakk ñëpp di siyaar waa dëkk bi yëpp. Mm-hmm. bàyyiñ kenn di siyaar maam Thierno mi nga xam ne. Mm-hmm. day suñu mag di suñu jëwriñ. ci xasida yi. dëgg yàlla bi nga ko jàppee la ma woon ne ma tey duñ ko invité fii. waaw ah, ma na ko incha allah rabbi nañ bàyyi lépp ñëw teew ngir sa jëf barke Sëñ kon ñu ngi siyaar ñëpp rek. Ah, di wàcc kàddu yi. jërëjëf suñu Omar dafa mel ni sa naanagul kafe wala kii ah? eh, Arona toppatool ma kii ma mburaake ak eh, soow ak mburu ak poñse ndax dama fay am ab siiseen boo xamante ni balaa mën a kii faw mu jëf bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax xam naa ni moom tey moom bu fekkee ni da ngaa wala nga ut der takk ko ndax xam naa ni bu fekkee ni da ngaa da ngaa kii da yëngu de ñu bàyyi koog suñu mbay. moo xam naa ne. yaakaar naa moo ci gën a ah yéen a den de bu leen utalee muraaka daal tegal leen ko noonu ci digg bi di ngeen ko mën a jëfandikoo waaw ma ñëw ci sama xarit nag sama téer moom day sañse rek duñ bàyyi jëri jëla micro bi ah taarkàlla ñu ngi siyaar bu baax asalaamaaleykum auzu billahi bismillahi ama tawfiq illa billah ñu ngi siyaar ñëpp mhm. di sant sëñ Tuubaa bu baax nag di sant sëñ maam Thierno mi nga xam ne moom lañu àndal di mhm. suñ mhm. jëwriñ xam ne moom fu mu nu fekk rek bu ñu woowee dañ daal di bàyyi lépp lu ñu jàppoon. Mhm. ndax moom day suñu lépp daal. Mhm. moom ñu fekk ca bërëbu liggéeykaay ba léegi rek ni ñu doon dem ñoo tax ñu ñëwee nii rek. Mhm. waaye bu ñu ko waajoon sax lay gën a kii waaye. foo ñuy liggéeyal lu ñu fekk barke sëñ Tuubaa xasida yi di la sant baax nag yow it ndax euh, rafet rafetlu nañ teewaay daal. ndax eh, bokk yow jotaay moom dañuy neex lool. Mm-hmm. ndax da ngaa baax. ndeysaan tey fi nga génn ci Baye Niass moom baax na lool. tey damaa dem Kaolack tey waa Kaolack kontaan na Saalum yëpp kontaan na. ndeysaan wax dëgg yàlla tabaarakallah <laughs> jaabooti. ayca lañ koy dundee ah wax dëgg yàlla di ñaan tawféex fii ci biim réew rawatina àdduna wërgal gépp ñu ngi koy ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla ndax weer wi ñu nekk day weeru ngëneen. di weer wu barkeel te fi mu ne nii léegi ñu yegg ci ñaar fukki fan yi nga xamante ni nii mooy njéggal gi wax yàlla bu ko defee mboolem luñ ci juumoon yàlla ko buur yàlla jéggal jéggal ko mboolem kuy jullit képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammad ñu ngi ziyaara sëñ maam dañ lay bàyyi nga tijji ah bégal mbokk eh, yi topp jotaay bi bu ko defee ñu soog a delsi ci ci waxtaan bi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 إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجيلنا من فرعون يا أعد يا من تعالى لم يكن كفرنا اليمادي تلا العلماء الأولياء من لا يسال حوتي وأولياء خفدت الباغت خفدت الباغت تكون أبدا خير المرام غد يتيم وجيلة كل الملك كانت مناجعات وأنته الملك مات وجاء نزار الله يا بلا إله إلا الله يا لا إله إلا الله جاء وجاء نزال الله يا بلا إله إلا الله كل سوى فوق كل في أبدا يا رب يا رب شكري لمن لا يغني به سارا وحريدا دنزوت إن لا زرزارا حمدي وشكري لمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلا سرسارا العمدي وشكر لمن لا إله به سارا أريد أن نشكر إن لا سرسارا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم الله سناء ورل لا إله إلا الله مستقل بالبلاء أنا أنسى لا إله إلا زويل من كل سارة سارة وإذا دنزوت إن سارة أنا الله سناي ورب لا إله إلا الله سبيلي بكرة إيمانا لا إله إلا الله وزور لمن فرق سيبك به زار أيام وردان نسجك بمبا زارا لله كل لدى لا فرما لا لا لا مرتاحا كرم بغير جمال الفضل وزوء المال لك يولك بيسارة كل مبادل الزوء إلا سرسارة إنا لسينا إلا إلى سارة خد قصدوا في يرات فرق أريني أوصل إن المسير إلى إن سرسار إسلام سيارة دارين أو شارا إن الذين إلى الخزر زيارتي ترخوا دارين أو شارا ربي بما يزرعون لا إله إلا أنا قد فجعل رجعي أفضل أيوة. لا إخد لك أشرف سرين توفانا الفجر فجمع كلمة لله خلد الحمد وصوم لمن لا إله به سانا وعربا كرنا وقريب إن الله سالسان ربي بما يسر الله معلجا أمدي لرب الكريم لا شريك له وصدري والسلام ملا حمدي لرب الكريم لا شريك له كله يا ونور أنسى بأننا محمد صلوات الله إلا الله علي عزيز كل بيك العالم رب كريم لا شريك له وسدريا يمنون محمد صلى الله عليه الله علي عفي كل به صلوات الله عبد الله علي كل أدهو إلا الذي أمد موائده لي جملة يختار ما إله ديني رب الغرام لله سريرا سريا اليوم يمنون سادي المرا أدهو إلا إلى محمد موالي لي جملة يوم الفجر ما إلا الله إلا إلا الذي أما البواهد من يولدين أقدار من برا الرحمن عبد الجميع الخلق رحمة كل يهري عني شرم القرآن خلقا الدوم لجميع للقلق رغمة من يغني عني سرما وخرا حماة المصطفى عن كل ما سدد سدد فرقمي كالخيال يدعو بدعا من وهب لجميع الخلق رحمة من لا يغني عليه سيما القرآن والورى عدحومات المصطفى إلى كل لا سلطة وترقمي قلقيا جدع بدعا قدومة المصطفى كل ما وتأمي فرحيا جدة أمنا يا مالك الملك جميعا ورا يا عدوان يا مالك الملك يا مالك عنك وبنا جميع الورايا يا مالك الملك يا يا جميع الورايا يا هادي يا يا مالك الملك يا سواد العبد الورى يا ديارنا موت ما قنا من درا أطاق من قلغا جاد برا Sayın معوت ما قدنا القلب من ضرر بجاه يفضى لمن لله إله إلا الله جما غنا غنا والو من درر من درر جاي أبدا كلمة لله فلجا كفى ما أو جما والو من درر جاي أبدا والو لله قد لجا وتما غنا أخذنا لمن لله لجا ما أوت ما خدنا لا لا من قدر لا لا أفضل لله قد لا وعوت ما خلق ما خلق وعوت جاي دائما لله خلقنا حقنا إلى الله خد من بل إلى الله جاي دائما لله خد إلى الله وعوت ما خلق ما خلق وعوت

te am naag yene ñoo ngi siyaar bu baaxa baax sama serigne sama wasila sama bunt ci ser ci seexul khadim sa xarit sa sopé xam naa ne mi ngi top jotaay bi ci youtube bi diko ko baalu diko ñaanal mom serigne basirou jaxate yalla sun borom katanal ko wéral ko man naal bi mun naal yépp liggéeyal ko yéene ko seexul xadim yéene ko maamam ja sëriñ baara mbàkke borom rekk dey sunu borom yeggaleel ko ko jaxate yëriñ njéeme ñu ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal jàmm du ko ñaanal sa waajur bu góor Baye Moussa jaxate waaye noonu lañ koy ñaanalee sa waajur bu jigéen fee ñu nekk sa barsax yàlla na leen saa borom defal ay ngëneen ndax kat dëgg yàlla liggéey nañ ko fii ci daaru dunia soxna seena bu Mbàkke moom sëñ Baara sëñ maam Cerno kooku lu mu am ci turandoo kenn mënu koo wàññi di borom ngëneen passeport bu ko musaane téye lu mu xat-xat da ngay tukki jigéen ju taxaw boo yegsee ci moom bu tiflee ci ndox bu la joxee da ngay wan lor leerug sëriñ Baara sëñ Baara moo ne ko woon soxna seena bu mënu ko Mbàkke mu ne ko boo eggee ci at yi na la wóor ni loo ñaan yàlla def ko boo eggee ci at yi soxna seeni bu boobaa ci jamono yooyu taxawaayu wàll wi ngay taxawaay ba mu ca yegsee noonu la demee yu baree bari jàpp naa ci loxo nit boole kook soxna si seeni yitte loolu saafara am nañ ci màggal goo xamante ni daa am soxna su jóge fu sori ñëw laajte kër gi ba yegg si na dan maa boole ak yow sama borom kër daa tukki fukki at ak ñeent munta ñibbisi man ko ah loolu de kéemaan la mun ma damaa bëggoon nag nga boole ma ak soxna si ma wax ko ko ngir mu ñaanal ma ci ma dalal ko war soxna si génn ci jotaay bi dalal gan ñi ba gan ñi wàññeeku ma direeku ba ci ay tàggam wax ko soxlay soxna si li ko tax a jóg ak fi mu bàyyee ko mu laaj gutt ñu jox gutt bu am ndox mu def ci lim ciy def na ko jëfandikoo ko nii bu soobee yàlla ak mbaaxam am kayit ak ñàkk am kayit day ñam ca déwén sa bu soxna si màggal si waa ji la fa àndal ñëw waat ma ba mu ñëw mun ma kin doon ñaan mu ñibbisi mi ngi nii nuyoole ma ko ñu àndaat dabaat ci soxna si loolu moom bokk na ci li nga xamante ni nii ma moom fekk naa ko te ak borom bi borom borom borom borom mbir la woon te soxna la de leerug sëñ Baara tuddee ko soxna Seynabou Ndiaye waajur maam Seera Faal moom la ko sëñ Baara tuddee. waaw. kooku day boole ci waa kër sëñ Touba day daa nekkoon kenn ko xam ne sëñ Touba. Mm-hmm. kenn la woon. Mm-hmm. ndax suñ baara rek nga daan wax soxla bu dugg ci noppam mhm. da wax day toog da lay romb nga wax soxla bu dugg ci noppam aajo yi faj wér na kon nag boo amee leer leer ngi def loolu mhm. dañ naan ni ko olof di léebe rek mhm. gopp moom bu bu demee ci ci waar rek wàcc na loolu day day day lu war te it sëñ Basiru monsieur monsieur Sëñ Bassirou Diakhaté mi sama si la. di sama xarit. xaritu sëñ Amar Cissé. moom day day ma laa ko xam. Hmm. bi ma bi bi ma bi ma jàngee bi ma jàng raay yi da dana tekk di ma déglu. Hmm. bi ma paree muy waxtaan ci xaside boobu. Hmm. ñu pare ma muy muy muy muy ku man ko jëggal bax jaxate iya, ndax bisu bisu bisu mbakka jël bi dama jëwoon ñëw sama dafa jàng yaa ngi koy wax mam ci mam ci mam ci ma yaakaar lool waaye ci kàttan suñu borom bu ñu yàlla mayee jàmm ba ñaan dinaa la woon jàpp mu ànd ak yi def ba këram mu yëngu ko boxlam seet incha allah sama yéene ci moom incha allah dama ko ngi waaw ndax Cheikh dem dem ma dis ko sama soxla mu ne maam Thierno ma ne ko Mbacke mu ne yow ab jàngu xasida nga bul tàllal kenn loxo di ko di ko di ko di ñaanal ma de de de del ñaan si biir baa xasida moom Baye Thiam moom Baye Thiam ne ma ñu luñ jox Cheikh Ibrahima ñu ko jox te Cheikh Ibrahima kat lépp lu mu mos am sëñ Tuubaa ko moom te yow mi doo fi ñëw doon jàngal xasida mhm. bëgg dara ci man ma koy ma koy dëgër du ma ko dëgër loo ci bëgg loo bëgg naa ko defal mhm. gi sëñ Tuubaa Cheikh waaw maanaam moom mu nekk kenn ci man damay toog léeg-léeg ndeysaan damay xool damay imaginer jëmmam ji day ndeysaan day day day Baye Fall la surtout bi sëñ Modou bi sëñ Modou Aminta sama xel demul ci kenn ku ci moom mhm, ndax damay xam ne boo demee këram rek da koy fekk laxasaayu sëñ Modou Aminta gi ni muy solo ni muy toogee mhm. jël ko teg teg ko ci mhm. da nga koy daal di gis ci moom kon nag Baye Thiamba maa ngi lay ziar bu baax ndeysaan di la ñaanal ci barke sëñ Tuubaa nga yàgg amiin amin amiin yàlla yokk xam-xam bi. ndeysaan yàlla barke la barke Cheikh Ibrahima. amiin amiin am na lu mu ñaa ngi ñaa ngi ñaa ngi ñaa ngi ñaa ngi ñaa ngi jaajëfal sunu invité bi maam Thierno wax dëgg yàlla di moom it day day day jàpp nit di wax ay mbaaxam ay qualité di nëbbu boppam te fekk lim ñuy waxal yàlla xam na ne ci moom la nekk moom ñii mu àndal ndax ku gis nii mu toogee nii. ak yaru gi ak dal gi nga xam ni xasida rek moo mën a defar doomu aadama ñoo ngi ñaan sunu technicien bi ci biir roi nga ibbil ñu téléphone bi bu ko defee ñu am ay quelques éléments yu nu dalal ñu wax ci maam Thierno ak njàngum xasida gi bu ko defee ñu mën a toppaale émission bi sëñ maam weer wi nga xamante ni weeru ngëneen la fi mu ne nii programme bi moom daanaka day day day day kii moom jàngkat yi moom du noppalu ko waaw fi ne moom nag koroog kii moom boo maanaam da nga da bi koor gi tàmbalee. waaw ba ci leedu xaddar gi boo génnee ba korite gi ba fukki fani korite gi yëpp da ngay jàng. da ngay jàng ndax léeg-léeg nag dañ koy namm. Mm-hmm. gars yi fi mu ne bu ñu doon toog ci bureau yi di di di amul xaalis. Mm-hmm. soo leen fekkee ne kaay jàng xasida ñu bàyyi lépp daw jóg dem. ndax neex-neex bi nga yëg jàng xasida. Mm-hmm. mënu ko yëg ci leneen lu dul xasida. sëñ Fallou moo xamal ne sëñ Tuubaa. mooy mooy mooy lu neex loo xamante ne soo ko xasee ba tàmm. doo bëgg ndeysaan ndeysaan ndax di nga fanaane jàng ñetti fan ci àll bi mhm. misaal may joxe sañ amar si mi doy na ci seede mhm. am na tournée ñu doon def man ak moom ak alaaj cuun kese ñoo doon nekk ci ci àll bi mhm. dem nañ ba guddi koo xamante ni kenn mënatu la wax maanaam dem nañ ba baa di bañ bañ bañ waaye li nga xam ne Sëñ Tuubaa du kenn gis nga suñu jëriñ bi mu tàmbalee rages xasida doxal doxal ba ca kanam bi mu tàmbalee mooy balaa mooy besori ba di ubbeeku na kenn yëgatul métti kenn yëgatul coono ci ci sa yaram. Mhm. loolu ki sëñ Tuubaa rek ko mun a dem ci àll bi uti fa xaalis uti fa dara sëriñ bi mhm. maanaam jóg fekk euh, taalibe sëñ Tuubaa yi ci àll bi. ci àll di leen bëggal ci xas dëgg. te te du te du comme comme mu tax mi lay jox mu tax mhm. nga wax nga wax maanaam da ngay dem ngir sëriñ bi yow. da dem ngir sëriñ bi. waaw te loolu. sëriñ bi rek nga ko a mënoo amee ci fen mu ngi mel tey sëñ Fallou bi may woo. sama damaa ñëw tey laal fas yu tey fas yu bañ. man sëñ Matar man joxe naa sama kàddu bu noppi. Mhm. bu ma doon fay fukki junni naa ko fay dem ngir jox naa sëñ Fallou sama kàddu. ndeysaan moo woo sama waa ji ne kaay yóbbu ma Tivaouane Peulh. Mhm. émission bi may def 10 mhm. ma lay jox. man ma nag ma jox ñaari junni man ko sëñ Tuubaa am na ko. ndeysaan mu defaat génn. ñun moom moom loolu day bokk ci neexatu sëñ Tuubaa. ndax lebal. ki nga xamante ne boo ko balu tànk la da nga dóor ci miir bi ni nga ko dóoree noonu lay dellusiwaat. day dellusiwaat mooy sëñ Tuubaa. ndeysaan. كان الشيخ الخديم لول موي سيغ توبا كان الشيخ الخديم سي مو داما دغ سما جوري دي وخني سي مود امين تاني جامبار امو كون ديمبال ام ديمبال وا ني بو ني كوري خامني سيغ توبا ديمبال نون سيغ توبا ديمبال نون كات دا تاي دي سو لامون سيغ بو فك سي فوكي ديباس يو خامتي مون نين كو جوخي كون سيغ توبا غي ديمبال ليك نك لولاي بوكو دي ام سو لو سيرين بي سيني ييكتي غير سيغ دالاي سيرين دا ولا جارا ديسان كون نك نون لا كوي ني ني مون مولا نفاي ني غاي كي بيمي تاكي سوخنا ليبم سما لوخو لوكو تاي du nijaay du papa du baay du kenn ku ma sonn ku mbokkam yi ku ñu daan àndal ak yow yaay doxal mhm. kee bi muy jël soxna dañu ba ci man mhm. nee ma dama mhm. sama ma ci kenn bàyyi ma dem ja ba mu ko demee ba war dem ci soxna si man loolu loolu bi la te moom mii suñu xamee lan la damay jàng seen koñ ak safar mu toog di ma déglu may jàng di di may jàng ba ba ma pare mu ñëw ci man ne ma sëriñ bi dama bëgg ñu ànd gis loolu nga xam ne sëriñ bi la Omar ba ñuy dal ànd maag moom mun naa ne boobu Tivaouane Peulh melul nii. Mhm. ñu ànd ngir Sëñ Tuubaa. Mhm. te boobu léegi ànd baa ngi rafet. Mhm. loolu la sëriñ bi la ñun suñu ànd bi sëriñ te koo ci gis rek la ñu gis ay moyens bëñam. te jii doo ci gis kenn muy dem nga gis ko ci ci lu ñàkk fay. Roa daa mel am na ko ne ci ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum ah. salaam. ah sëñ Fallou maa ngi leen di ziare. ñu ngi daloo ziar kooku tur bi ak fooy wootee. Ah, kii de Abdoulaye Seck lañ koy wax. Abdoulaye Seck. waaw. dëkk ngi lay ziare Abdoulaye Seck. waaw maa ngi leen di a baax. la koy delloo bu baax a baax a baax. yaa ngi dégg ci jotaay mhm. tey moom da ngaa invité sama xarit. sama doomu ndey. sama lépp. Mhm. Eh, daanaka su may wax ci moom sax du ma matal. Mm-hmm. waaye émission boobu wax dëgg yàlla lu ñu neex la. Mm-hmm. di ko ñaanal liggéey bi muy liggéey Serigne Touba. Mm-hmm. Eh, mu def ci ba def ci lu ko jox bat Serigne Touba. amiin amiin amiin bak Serigne Touba. ah parce que lii Seydina Amar moom mu fekkoon. ak jàngkat gars yi baax yooyu ñu àndal lépp rek ñu ngi leen yow sëñ Fallou di bu baax a baax moom laa lay wax sànq ci tàmbali bi ne la moom mu yónnee xaalis bu bari ngir ma wàcc leetu xadar gi. ndeysaan ndeysaan. moom ku am la. Mhm. ndax bañ bañ ko dalee jàngale. Mhm. maag sëñ Amadou mii di ko jàngale. Mhm. daayira ba amul woon sax ay rajo. ndeysaan waaye dana ma. bu dee bay fay ab jàngkat ay millions yow lañ koy fay waaye duñ ko fay keneen. loolu nag kóllëre la. ak ndimbal bu sëriñ bi def sama diggante ak ñoom. di di di di ku bëgg Cheikh Issa Diène. yàlla na la sëriñ bi gën a taxaw barke Sëriñ Tuubaa ñoom ñi ñoom ñi lay jàng ndox mi waaw ñoom ñi lay jàngalee mhm. ah, eh, sëñ Ablaye waaw moom moomu amuñu fayam dëgg la sëñ maam moom Seydina Omar moomu mhm. eh, dañuy dañu ànd démb tey sa ba ñëw dëgg la dama koy wax rek ñoom ñoo ci loo xamante ni yàlla ak Sëriñ Tuubaa rek koo mhm. bàyyi Sëriñ Tuubaa ñoom ñoo xamante ni liggéey Sëriñ Tuubaa rek leen ñor mm-hmm. eh, dañ leen ci ñaanal ci barke xasida Sëriñ Tuubaa yi a yegg ñu yegg fa ak seen ndax fii fii la ñu dëkkee waaye yàlla dafa daanaka daara ji ñu yoroon fii ñoom ñooñu ñoo jàpp tey bii mu toll ci raamaat ci dox waaye lépp ñoom ñooñu la wallaay ah fu mu toll rek ñu ngi nemmeeku jataay bi ci ñu toll lu ñuy def itam comme ni mu ko waxee rek ñoom ñoo ñu jàppale ci lépp rek moom mm. ak Seydina Omar moomu desaan ak sëñ Xaadim Lam moom nga xamante ni doon loo xamante ni wax dëgg yàlla seen boo ci dee wax rek da ngay daal kii daal waaye dañ leen ñu ñaanal ndeysaan eh, rawatina moom man Cerno ndeysaan baax rek waaye mbaax gi buñ ko dee wax moom duñ ci jóg mm-hmm. dañ koy ñaanal rek ci barke sëñ ci baax xatu day ci jërëjëf li ñu fas yéene liggéey naal ko yàlla na ko def ak sago barke sëñ Tuubaa. amiin amiin moom la rek lépp luy am rek la waaye dañ koy moom dara jëmm ko su may wax saa liggéey sëriñ Tuubaa rek sa ñaar suñ toll ndeysaan saa bu mu ko wee na ni jox ma nangam wala nangam ak nangam waaye yooyu lépp li ci am bu jotaayu taxawee bu mu nekk seen nangam ak nangam mënu ma. bu mhm. ko soxla. dëgg la su ma nekk ah xoolal noo kii ñu waaye ko jox ma sëriñ bi dama koy ñoom. loolu loolu mooy jikkoom nag. sëñ Maam mooy jikkoom. wallaahi wallaahi. moom moom moom day sëñ Tuubaa moom takku ci témbe la nangam ngay joxe. sëñ Maam Thierno foo ko mënti mbooloo mi muy àndal sax mooy dagg paas. dëgg def ko ngir seexul xadim te sëriñ tubaa nag moom. ku ko lebal ker dalay fay guddi. ndax moom moom am na fay te kum fay nga xam ni moom wax dëgg yàlla. dootoo soxlaati dara. lebal lebal sëriñ tubaa nag moom daa daa daa xaw a méngoog di lebal suñ boroom ndax sëriñ bi daa mën a daa mën a néegandoo ko waaw li naan li naan mbaax uh-huh. ak mbaax boo ko tàmbalee day daw wooyu mbokkam uh-huh. nga yaakaar ni mbaax daa kii fekk ma ngay dajale ay mbokkam ngir ñëw mbaax gi ko ji la bëgg a fay uh-huh. <laughs> loolu nag moom ku koy ñaanal sëriñ Tuubaa defal ko ko bég nañ bu baax nag. jërëjëf jërëjëf ñoo la gën a bég. ñu ngi ñu ngi jéggalu ci guddal bi bu baax. jërëjëf amul solo ndax xam nañ am na ñu bëgg a dugg ñu ngi tuub bu baax jéggaluwaat waat baax. jërëjëf nga xam ni ñi fa nekk ci jotaay bi yëpp ñu ngi bégee ñu ngi leen di bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf yàlla xam na ni li ñuy wax su xol lañu tuddee. waaw wóor na. daara daara jëpp ñu koy jàll ñu ngi

dëgg yàlla sama soxla su koy dégg moo moo moo ci man ndax bëgg weesuwul weer wi tàmbali leen koor gi tey rek mu xëy suba gi woo ma ne maam ah sama bis bi laay soññee suñu bis bi laay soññee mhm. loolu tawféex la ndax ak yéeg nag weesuwul loolu moom ak sañu waay dafay mhm. ñoom mënuma leen fay leer na jëm bi sañu omar mi ak gars yi ma fa àndal di fa jàngi mhm. maanaam bu ma leen jàngalee ba noppi dañuy def ba def lu amul. ngir sama jëmm ji loolu nag damay faral di ko wax ne loolu du man sëñ Tuubaa kon sëriñ bi tax ñuy def yàlla nañ ko sëriñ bi yombal bañ am luñ mën a def ci nit. amiin amiin amiin ci dara gi sëñ Tuubaa. loolu moom wax dëgg yàlla sama xol dëgg sedd mu woote mbi sama xol sedd na ci. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ndax koo xamante ni daanaka daayira bi ñoo départandoo. Mm-hmm. ba tey jii du jëli benn ab Ablaye Seck ginaar sax bu bu bu làqoon këram. Mm-hmm. su bëggee ko jàngal daan maam Thierno ak Omar Cissé loolu nag ak yëg la loolu ak yëg la comme ni nga mel ci man rek noonu la mel ci moom ndax bëgg dem nit nee na ma yow sëñ Fallou moom yàgg moom loolu seq ma ne ko sëriñ bi ma ne ko sëriñ bi lañ seq ndax maag Fallou ba tey am pël dul dara lañu ànd maag moom wallaay wallaay Fallou daan nañ ànd lay doxadare fu ne Fallou fu ne ànd nañ fi yëngu yëngi xarit yi tey bu ko suñu boom dogalee mu tokkiteel def lii su ma dalalul rek dañ naan Sall Fallou ak maam Thierno déedéet taf taf suñu ànd daa ba tey. Mm-hmm. waaw nag loolu yàlla na ko suñu borom yokk barke. amiin amiin amiin amiin yàlla na yàlla gën a taxawal wax naa la nee la yàlla na gën a yaatal seen ñëpp di ko seet ci àdduna bi. amiin amiin loolu la ñaan dargi Sëñ Tuubaa. maam loolu nga wax. Mm-hmm. noonu la demee. maanaam ñu bokk teen bi ñooy laxasoo ay goj ñun ki ñu bokk mooy Seexul Xadim mm-hmm. kenn la te mënuñu koo séddoo. dëgg la dañuy mën a rek jëflante ko rafetal ko topp xasida yi noonu la mel ci Omar Cissé noonu laa mel ci suñu Xaadim Lamp noonu laa mel ci suñu Lamp si la noonu noonu mboolem jànkat yi nekk Tivaouane Peulh gépp man damay bëgg samay invité duma ma jënd fii ci Tivaouane Peulh ndax kat kii wàllu yaan sa dëkk daa tëgg walaay dëgg la looloo tax ma ne lu sonal kar kar téléphone bi la nangam ak nangam yooyu rek laa jublu mënoon naa woo ay ñeneen di ñëw su boobaa ni ma bëgg dëkk bi dundee ko duñ ko dundee noonu ndax yow boo ne kii kat xaw ko damay xool talaam man nga top émission bam jeex ta amone nga crédit pourtant war nga mën a woote bu ma dalee Omar Cissé so sopalé xam nga ko yéen bokk dëkk bi di nga dugg di nga mëna wax ci mom lool rek lañ ci djublu waaye ba pigen nga ñu jógee ba ndangam barki dem sëñ Malik mu ma invité jaxaay la jóge te télé bi romu na fof nga fay ko dañuy toog fi di wote naan ñi ngi topp jotaay bi légui bi ngay dugg si kilibam lañ dañ tek konoon la ko fi bàyyi bu mu fi ñëw émission lay soga bayé lool pour walé la ñun ñun ay alalu sëñ Tuubaa la rawatina ñu doon Baye Fall Baye Fall daa war a doon makat bii ku ñëw jaar sa kaw jàll. nii ngay doxee nag nii la Baye Fall doxee maa ngi maa ngi profité ci loolu di nuyu sama rakki jànkat yi nga bokkal dëkk bi muy ku ci mel sëñ Xaadim Lamb mhm. ak sëñ mhm. xam na ne sëñ mu su ma ko woon tey ji mu bàyyi itam yëpp daw day ñëw xam nga euh, man euh, daa am loo xam ne sëriñ bi dama ko defee ci dëkk bi mhm. moo tax waruma def leen lu dul nekk seen Baye Fall ñoom ndax koo ci fekkoon mu toog tey nekk ci Omar mii. ndox ku ne xam na ne weeru koor daa gàtt. waaw bal nga après soxna si tegal la ngay naafi la laa def say lawraat. Mhm. dama ko woo téléphone rek moom jàpp naa ñaar ci moom. Mhm. soo leen dinaa def sàngam dina wax soo bu neex ak suñu borom. Mhm. moo ba mu ne maa ñëw woote ma ko kii moom bi ñëw naa bu toog fi émission bi tàmbali kenn mu woo. te même su ma ko wóoroon su ma joxee kàddam dina ma maa maam am na ko ne ci ligne bi jël ko. bisimilah allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maam Thierno maa ngi leen di ziar bu yàlla na yàlla nangu bu baax si xaadim laam. mbay ñu ngi ci jàmm. ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax. ah sëñ Fallou tey de mu kontaan naa lool tey mu gën a yéen. sëñ xaadim ñoo la gën a bekk. sama sama xol di seet bu baax ci jotaay boobu. yàlla na baax. waaye bi ngeen commencé ba léegi maa ngi toog jotaay boobu na sëñ Tuubaa. Mhm, mhm. ndeysaan ndeysaan ndeysaan tey moom dalal nga ndaanaan Cerno moomu di jàmbari xasida mhm, kon bu ñu geesu seen ko ci télé bi wax dëgg yàlla suñu xol dina gën a sedd bu baax ndeysaan njortoon nañ ko nag baax noo ngi nuyu Seydina Omar moom toog ñoo koy jox wàcc waayam bu baax amatul noo ngi ñaan sëriñ bi mu dëgër leen bu baax a baax amin bak sëriñ tuba amin bak sëriñ tuba ya, yéen ji ngeen am ci liggéey sëriñ tuba bi amin yàlla bala ak ci dox bi yëpp yàlla na yàlla tëlli leen kattan mu yóbbale ko barke alquran amin bak amin amin amin eh, sëriñ fàllu ni ma la ko waxee woon rek ci jotaay aha ñooñu dañuy ay jàmbaari xasida yoo xam ne mën nañu ci def lool waaye war ma diñu jot ci jëmmi sëriñ tuba mënuñu koo takk fenn ndeysaan waaye nag sëriñ bi nag moo ñu toll te mooy doxalee ak mbiram moom. Mm, mm. bu ko daal suñu suñu suñu mbégte moom maanaam kenn xamul fu ko mën natt pour na sëñ Tuubaa. Mm-hmm. tey. mbégte mi ñu am yàlla ko seetlu jëm sëñ Tuubaa. sëñ Fallou. sëñ Xaadim mi. moom day ku baax. ndeysaan ndax ba may doog a ñëw ci dëkk bi. Mm-hmm. moom laa fekk muy doxal daayira. Mm-hmm. ak ñoom Sam Kamara. sëñ Xaadim nekk ku ñàkk ñaan. ndax damay faral di wax ne nag boo ñëwee ci dëkk moom mhm. ka la mooy sa mooy mhm. waaye damaa ñëw mu rot ci lépp ne ma yaay sama mag doxalal tey mhm. ba ci gataay yu ñu daje su ñëwee danaa maam Thierno doxalal ba doyal ñu doog doxal loolu man mënu ma koo fay dama koy wax ne sa teraanga day tàmbali rek waaye dina gën a yokk day kanam la jëm waaw ndax ku ku ku ku joxe cër suñu borom delloo lu cër te moom daa joxe cër te daa bëgg xasida ma ngi lay ñaanal yàlla la suñu borom yokk barke xasaay bi amiin amiin amiin barke ndax yow moom ak Omar Cissé ak Lamp seen sama sama sàkk ngeen mm-hmm. Mm-hmm. su leen sëriñ bi defaree defar na ma mm-hmm. kon ku leen teral man la teral li sama ne yaa seen bàyyi di wax naan benn jànkat xasida boo ko teralee teral nga ñëpp waaye boo ko toroxalee toroxal nga ñëpp kon nag sëñ Xaadim yow yàlla si teraa nga yokk barke amiin amiin yow moom da ngaa nekk sama ci nga xamante ne dañ may daaral ci njàng ni sëñ daaralee moom wax naa ko nee ko yow saa boo jàng dem lu may yëg mhm. li may yëg mooy yàlla dama dimbali dara mooy sëñ Omar ak sëñ Xaadim ci man mhm. ku ci jàng rek ma gis sama bopp ci ñoom kon nag yàlla na sëriñ bi yokk barke Sëriñ Tuubaa amiin amiin yàlla na nga nuyu ma soxna seeg njaboot gépp rek barke amiin amiin amiin kontaan naa lool amiin digg yàlla sëñ Xaadim ñu ngi lay siyaaraat bu baax te di la ñaanal jàmm ak sutura hmm. xéewal yi sax dàkk dara jati wa duudu yàlla la ko yàlla defal defal ko mboolem ñun bokkal jotaay bi ak ñu topp jotaay bi waa kër gi ñépp rek waaye noonu la ñuy siyaare bu baax Pape Diop Baye Fall fële ca Daaru Salaam mook sëñ Xaadim ay dëkkandoo lañ sama eh, sama sama nit eh, nee na bu ma tàbbee ci émission bi ak bu ma tàbbul yëpp duma ko tardé xanaa ma bañ fee nekk waaye bu ma fi nekkee incha allahu taala dama koy seetaan ba mu jeex ndax li waral loolu mooy dox dox ni Baye Fall gën koy dox ba pare Baye Fall mu mu mu mu bokk ci magum Baye Fall yi sanc Tivaouane Peulh moom Pape Diop ak euh, si naa minise ak axlu ñoom euh, sama mbokk taalibe yi sëñ Moustapha Bey nga xam ni moom it suba moo woote ndogalu yaatu fële ca këram kër waajuram bu góor loo koy defee ndax moom tuxu na waaw kër pape fa la koy defee ak waa axlu kafe gi nga xamante ni nii boobu ba léegi ñu ngi ci jaam ñi di leen jox ndog yi di boole seeni ñaq ak ñaq jaam ñi diko segg café ci seggin wu sell di jox jaam yi te ku na xamanteni ne wi ni nek ben doomu tàndarma kep nit wor ba ngor nga dal ko jox ko eh. tek ci kasse café wala mbrok beur lolu gat ah ay makama yi kawé kawé ñi ngi ñaan mbooloom ko xamanteni ni ak fu ko waay mën a rek eh. ndax kat lepp rek day nurul ci Baye Fall ndax weer wi bu taroo fi ni da ngay gis ko xamanteni ni sa bokkul ci ñun di bokku bokku lu ci ñun lolu ak cant la daw seetaan naa benn joxe ndogu boo xamante ni ay chrétien sax ñu ngi ci biir man def ko ci tiktok beeg yépp loolu bu fekkoon ni lu ñuy xeebe la kenn duñ ci roy kon dañ waxaat jërëjëfe maam serafal moom mi nga xamante ni moo tax ginaar yi manqué fi ne nii ku bëgg ginaar di ko wër ba son jënd yàpp moo gën a yomb jënd ginaar ginaar gu tuut la lay jaay 4000 lu ko waral mooy maam seex moo jël ginaar yi def ko ci conteneur yi jubali ko Touba di ko togg di jox suñ muntaxaar ñuy séddale jaam ñi sëñ Amar Cissé wax ci ndog yi xam nga xam nga dafa am loo xamante yi nii waaye xamul dëgg-dëgg Baye Fall ndax xam nga boo dee xool ni mu ni mu tasaaroo ci àdduna bi nii eh, maanaam Tuubaa lañ ko gënoon a xamee maanaam joxe na ko Baye Fall waaye tey ji bu koor gi dugg see maanaam bala ngay bala ngay xam ne lu am njariñ la rek. Mhm. nu ko fekk la coono yi. Mhm. waaw dañuy gis gaa yu koy def. Mhm. mbégte mi ñu ciy àndal. ba pare def ci pas-pas. lu ñu am def ci. wallaay wallaay. waaw moo tax saay bu bu la nit rombee boo rombee ku lay laaj àddiya. da lay dimbale. waaw lu lu mu lu mën toll bu nga xeeb. def ko ci te yéen ci te yéen ci liggéeyal sëriñ bi rek. waaw te li nga ko waxee rek maa doon doomu tànnatama rek ku ko ci doo ku ko jox euh, la la suñu borom di fay moom rek moo xam ndax moom moo ne koor maa koy fel sam bopp mhm. waaw kon nag lu lu mat a bàyyi xel la mhm. waaw te lu jar a fonk la mhm. waaw ndax man xam naa dara ndax léeg-léeg mu fekk ma coon wi te daal lu sedd xol la waaw c'est kenn moom kenn moom ndax lii ba mu koy créer di ko doxal xaw ma xaw ma da waaye ña ko fekkoon xamuñu woon ne dina agsi fi mu agsi waaw kon fi mu agsi tey bay dox ci ci dëkk bi yëpp ni nga ko waxee amul mu amul tiijaan amul xaadir amul laayeen. ndax lu baax ñëpp ko bokk. Mhm. mooy wax jëm waxoon rek. mooy wax jëm waxoon. Mhm. danoon yoon wi mhm. ku ci sëyul di njaalo. ku ci waaw. xam nga mooy lan. mooy lii maam Cheikh Fall moo moo daan joxe ndaw. ay taalibe mi du joxe ndaw. tey dem na ba ñi nga xamante ne bokkuñu ci yoon wi di dem di joxe ndaw. ñooñu ñooñu ana ñooñu jébbaluñu waaye bokk nañ ci maam Cheikh Fall. ndeysaan kon wax jëm waxoon daa daa feeñ tey. teew na waaw ndax xam nga. Baay Faal léppam day barkeel. ku liggéeyal yàlla ba am ba am ngërëmul ngërëmul yàlla. Seex na daal liggéey Sëñ Tuubaa ba am ngërëmul Sëñ Tuubaa. Mhm. Sëñ Tuubaa daal liggéey Rasulullaay ba am ngërëm Rasulullaay. Mhm. Rasulullaay daal liggéeyal suñu borom ba am ngërëm suñu borom. Mhm. waaye ngërëm yëpp nag soo ko boolee. Seex na boole ngërëm yëpp. lu mu lal mu law. ndeysaan. loolu moo waral lii tey. ndeysaan kon de waxamte na. waaw maanaam li ma waxoon ne sama yoon man barki samedi bee parce que jàng naa ko sama koñ. Mhm. ñi ma ko doon jàngal dañoo def marmé di kër. Mhm. Serigne Saliou Mbacke seetal na ne ñi ci ëpp ay tijaan la. Mhm. juróom-ñaari la ci ne. mais ñi ci ëpp ay la. te bañ doon laaj kenn ku ne juróom junni ñoom ku ne fukki junni la jox. ba pare ki doon waxtaan ci ci Cheikh Ibra. waa juróom tijaan la. waajuram bu góor waajuram bu jigéen tijaan la moom ab tijaan la taalibe euh, sëñ Cheikh Ahmad tijaan la moom lañ jox thème bi muy waxtaan ak Cheikh Ibra waaw kon nga xam ne nag yoon wàññi. loolu la yéeme na. xam nga sëñ Tuba li li li mu wax rek karaama yi du du du du julli si géej gi du xam-xam kan mooy sëriñ bi. Mhm. karaamati xatiyati si xidmati mu ayati mhm. sama sama karaama du julli si géej gi. Mhm. moom bind sama sama loxo mooy karaama gi. kon nag Cheikh Ibrahima suñ ko amee. muy indi loolu ba tey loolu law ba kenn ku nekk bëgg ci bëgg bëgg koo def. da ngay xool ne weeru bu ñëwee sama garage ba ni ñu koy defee dañ dañ koy waajal maanaam mm-hmm. dugg ci garage yi garage mën a joxe téeméer mm-hmm. xale yi di ko dajale bu ñu toogee ba ngoon ñu gàddu seen kii ku ne dugg ku ne joxe ñaar fukk wala juróom fukk wala ñu dajale ko su la bëggee ñu def ko jox ko jàmm da koo jiite Assane Baye Fall lañ ko rek ñu ne ci man ne man damay def guddi maam Saa Fall gi loolu pas-pas ak yéene mm-hmm. mooy liggéey bi mooy liggéey waaye man li ma gën a yéem ba tey. dama koy laaj ba euh, euh, xalifa maam si arafaal yi ba ci sunu xalifa bi mujj bi yàlla ko yàlla wéral te kàttanal ko. suñu am di mel na faal. léegi moom nga gis ginaar yi ak xéwal yi bernde yi naan yi. kane bi waaw waaw waaw kii euh, waarees yi bu fekkee ne am ngeen benn image ndogu Baye Fall rek may leen ñu ko ñu ñu ñu ñu boole ko ci waxtaan bi nga gis xoola camion yi dañuy wàccee naan yi kanadi pomme mu wóor ni fi ne nii ñun balaa kori lu naan ak soble yooyu boo moytul ci jafe-jafe lay nekk moo waral yokkaat beeg parce que manqué na. Mmh. Mmh. Mmh. ndax tubaab bi dañu naan si dañu wax sëñ Bamba ko sa doom. ndax daanañ ko wax sa dof bi fekk na xamuñu sax sëñ rek mooy kan. maanaam yoonu Baye Fall moom yoonu yàlla rek. ku ci xamul ku ci mënta wax lu baax. maanaam na ci maandu. li li li waaj a wax keroog rek nee na sëñ Tuubaa daa daa nandite ma ne ko li tax nga wax ko mu ni daa njëkk ci xol gi bàyyi ñoog col gi. nee na sëñ daa njëkk ci xol yi bàyyi ñoog col gi. da ngay gis nit muy def lu la neex lu sa lu ko lu ko neex mm-hmm. waaye boo làmbee xolam séy daa ngi ci maanaam lu sëñ maam Thierno wax rek ku ci saytu njaalo ci mm-hmm. waaw gis nga fi ne ni nga ko waxee rek ginaar yi fi ne manqué na te lépp dem na Touba mm-hmm. ma ne sama kër ginaar yi fa ne yoo toll te juróom-ñetti téeméer dañ ko jaay te lépp ndogu yee ko waral Cheikh daal moo moo mooy mooy yoon yi daal maanaam gis njariñu ndog yi mhm. ak tawféex yi mhm. ak weer yi nga xamante yi nii mhm. loo ci togg ñam nu mu gën a neexee billaahi maxaama yi ak yëw gi sunu ko gën a ful billaahi tax ñu taamu ci gàtt yi ginaar yi géléem yi di ko di ko di ko defar di uh-huh. ko def nu mu waree te li ma gën a yéem ci sunu sunu sunu suñu mbokk Baay Faal uh-huh. kenn du ci saaf benn déedéet ba ñam ko duñ ko ñam xorom ko ñam duñ ko ñam duñ ko ñam lépp la ñu yóbbu sëñ bi li eh, boo <laughs> dégg léegi du eh? nee la kanet la <laughs> xanaa kii moo daan jël maanaam sox yoon soxoon te tudd jeewal waaw sox yooyu nag la sëñ Tuubaa soppi <laughs> boo dégg téel rek jàppal ni kanet bi ubbeeku rek waaw rek secret bi Cheikh Ibra da kaa xam. Mhm. maam Cheikh moo moo xam secret bi. Mhm. jaamu yàlla bu gën a gaaw yóbbu nit àjjana mooy berne. Mhm. da koy xéewal. te siisoo si. boo du si kenn amul xàjj amul seen. nga teg nit ki ñëw xéewlu ba suur. dem loolu benn jaamu yàlla gënu kaa kawe. waaw loolu mooy secret bi moom la xam. te sey bi dafa doy war ku jara ku jara bàyyi xel la jara teel ay mbiyam la ndax ko xamne neena ba ma commencé jaamu yalla bobu nit ak jinne ak malaka sakagul ko kon koku kenen la mm-hmm. waaw motax ay mbiram kën du ko xam fi yamal xiyaam ak la ngay xam nag yamal xiyaam donc la xam Cheikh Ibrahima Fall gis na léegi àdduna bi da ngay dem ba partout dans le monde weeru koor bu jotee comme nun koy defee Sénégal lañ koy defee léegi Europe sax dañuy togg ndogu du wër du joxe kon wër na moom mooy àdduna Cheikh Ibrahima mooy àdduna waaw lam Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibrahima Faal yaa tax ñu xam tarbiya bu bay jibu ba gerte tey joxe addiya addiya addiya moom Cheikh Ibrahima Fall. lépp Cheikh Ibrahima Fall. ëllëg la mbir yëpp di leer ñu xam la. waa ci la wetu alku Fall yaa moom ruuy. Cheikh Ibrahima Fall. lépp Cheikh Ibrahima Fall. lépp yaa tax ñu xam tarbiya bay dugub ak gerte a joxe di yaay faal jaaraama Cheikh Ibrahima Faal laram la soxla ko yaay yow yaa ko mosal waa Ndiara Ndiaye ko yaa ñu na faal yaa jaaraama jaaraama Cheikh Ibrahima Ba. am Cheikh Ibra Faal. Cheikh Ibrahima Faal. lépp. Cheikh Ibrahima Faal. Cheikh Ibrahima Faal. Cheikh Ibrahima Faal. Cheikh Ndiaye ma faal gërëm la yeneen bay gërëm Ababacar Sadiq gi rub dëggal waaw Serigne Touba di gërëm Cheikh Ibrahima Fall bisu teexe waaw lam karama Cheikh Ibrahima Fall lam nasukawnona jeey dammel ko njoogu dammel samba yaaya samba yaaya faale jarama jarama Cheikh Ibrahima jarama Cheikh Ibrahima la ilaha illallah est-ce que la ilaha illallah est-ce que la ilaha illallah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 اسك لا إله إلا الله اسك لا لا اسك إلا الله لا إله إلا الله اسك لا إله إلا الله لا إله إلا الله bu ñuy lekk mbaa ñu naan ah, ah. bàyyi Serigne Saliou Mbacke lan di woo jërëwér mu far wuuti bismillahi est barke borom Touba ataaya ak café ah ak taalaale sunu ko woon déedéet taxaara xool lu daa baxal ah. dooral xëy de Touba ah. tax ñu bew tey jii daam ngir ma tëdd ma doon di digg teg tulaa béeb jébbal waa Touba ndaa tëgg alam ko Touba jàkkaan ko ñuy julli weer tegal nan na ngay wax la jërëjëf Serigne Touba xaadim yaa demoon géej yow rek yaa xam loo ca biir géej yow rek yaa xam loo ca ginnaaw seen moroom jërëjëf sëñ maam amul moroom waaye ñu ngi lay jaajëfal ci turu yàlla woowu ndax ku ne xam na ni Cheikh moo ne woon dama xibaar ak njëbbaloo xamal ne ko ni yàlla suñ boroom moo ne ko ni seexul bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe loolu nag moo tax bu mu ñëwee mu jàngale taalibe ak tarbiya ba tey jii moo sar ci mbooleem këru diine yëpp tijaan xaadir laayeen ñëpp événement bu mën a xew ci mbooleem tarax yëpp dañuy dox doxu Baay nga gis góor yàlla yi bu nee ci liggéey bi dañuy wane passeefu Baay Faal soxna yi dañuy wane ay nduróole laxsaay laxsaay Baay Faal kon nga xamante ni lim fi jàngale te ji ko fi fii ba koroog jamono di jeex loolu rek la ñuy dund maanaam maanaam kër goo dem. Mhm. am na Baye Fall. am na Baye Fall waaw. kër goo amul Baye Fall du dox. ndeysaan mi ngi noonu waaw. bi situation yi critiqué. Mhm. Baye Fall la réglé lépp. ndeysaan. ngay xool bi sëñ bi mag bi laa ko. Mhm. sëñ Mor Moustapha nekk xalifaam. Cheikh Ibrahima ak sëñ Mor Ndumbe moo réglé lépp. kon lu ab Baye Fall te jël réglé wul. sëñ maam moo ko bisimilah. bisimilah. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu yàlla na yàlla nangu ziare bu baax. maam Thierno. ah sëñ waay Ndefay. waaw ñu ngi lay bëgg bu baax a baax de. jërëjëf Faye jërëjëf Faye. di la sant di la gërëm. alhamdulilah. kontaan ci yow bu baax a baax. ndeysaan maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan Faye. di la ñaanal. ndeysaan amin amin Faye. ku gëm sëñ Tuubaa nga. ndeysaan amin amin ñu bokk est am kóllëre nga. waaw ah, ndeysaan saan ba dara dul woon dara ndeysaan ndeysaan dëgg la te loxo dafa mos a nekk ci suñu daayira bi ndeysaan ndeysaan sifa si dóor yi sifa si dóor dëgg la de ngay taxaw chaque jour di ñëw di ci def te yàlla tax laajuloo ñu gërëm sonaloo ñu ci dara ndeysaan ndeysaan loolu du du du tey démb la waaw loolu dëgg la dëgg la kóllëre googu rek laa la jàppe man ak si Ablaye Seck ndeysaan dëgg la de waaw di la ñaanal amin amin ñu baax ñëpp egg si amin yàlla nag fa lépp loo ragal yàlla boo ko gis amin barke sëñ Tuubaa loolu yóotu yàlla na yomb amin barke ci barke si Mbàkke Madina sama sëriñ ndeysaan moom mi sëñ Fallou dañoo bokk Daaru Xuddus mu nekk taalibu sëñ Mbàkke Madina ma nekk taalibu sëñ Mbàkke Soxna Lo waaw moom bokk na ci ñi njëkk yëkkati bu jox ma ne ma solal jàng xasida daayira Sifaa su doori bi mhm. may jangal bi sey ay ah. mi gene mom mo jëriñ ji ah, ah, sa bu ma fajar lima daara bi jox ak lima jox bokku mhm. eh, eh. lolu taw feexam la ak mbaaxam yàlla sëriñ bi yokk barke Amin amin amin. amin amin damay faral di wax bax ba bax jeex mhm. bax ki sa alal ak ki sa ñak mo mo dak mom eh, da bax ci alal bax ci ñak touba ah yow rek yow moom daa baax ndax fi mu ne bu bu bu bu bu daal xar dëgg jotee bu ma ñëwul day toog di ma xaar bu ma jàng bu ndëpp mu doog ko tëri. ndeysaan te day xëw te xëy suba liggéey. Uh-huh. kon nag dama koy ñaanal fi nga bëgg ak yàlla na ko ak ci barke Sëñ Mbàkke Madina. amiin amiin yàlla na ko yàlla defal barke Cheikhul Khadim moom daa baax lool. amiin mooy jëriñu daayira Sifa su dóori bii may jàngal lay xasal. Uh-huh. ñoom ndeysaan eh, bu demoon ko daayira ba tey jii. Uh-huh. soxna yi bari da ngay fàtte turam soxna si nga xamante ne maa ngi ñëw bokkaw askan. Mhm. ma gis dana ma del teel a ñëw ci leeru xadar gi. Mhm. ñu teel a gile gis ndax bu ñu la teel a gis dañuy te ñun yow yaa yow yaa ñu ci ak yëg la mhm. kon nag ñooñu yàlla na leen sëriñ bi taxawul. yàlla na leen sëriñ gën a jàppal barke Sëriñ moom damay faral di wax moom. moom moom yàlla dimbali ma fi. ndax maa ngi fi ne ñoo ñoo dalandoo ñoo àndandoo ñoo nekk. bisimilah am na kuy dugaat. bisimilah. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ñoo ngi ziare tur bi. Eh, Bacim Ndiaye. sëñ Bacim Ndiaye. waaw ngi ziare baax ñu ngi ziare. ngi delloo ziare sëñ Bacim. ñu lay delloo ziare Ndiaye. Ndiaye macha allah léegi ndeysaan sëñ bàcc da ngay da ngay sori télé bi wala nga wàññi ko bu ko defee déggante bi mën a neex tuuti. waaw. ngi lay fay. di kontaan ci yéen bu a waaw. Euh, ngeen. waaw li mu am na solo na. la. jaajëfal na déggante bu neexul dafa topp dafa jege télé bi bëgg di di seetaan di waaw nu lay siyaare sëñ Babacar Laye mm, sëñ waaw mii nga xamante ne day sama wóorale sama mm-hmm. démb rek damay woo wax ne bu ma sañoon mm-hmm. da jàng Sénégal di jàng bitim réew te maa ngi ca bu bu ko yàlla dogal dinaa ko def yàlla ko yàlla dogal mu nekk ko xamante ni sama nit la mm-hmm. ko xam ne day jël alalam ju bari teg ko sa loxo te lu lijjanti. xamul ci loo ne. kooku kenn la ci man macha allah ak sama baay. Mhm. baay Cheikh Saad bu Touré. Cheikh Saad bu Touré. moom muy sama baay yar ma. Mhm. ba may tout tànk moo ko sama waajur la woon. Mhm. ba tey ji maag ay doom ak moom. ba ci bisam bii daf maa woon ne ma soo ñëwul dama lay bàyyi foo mun a nekk di nga mu nekk kenn ci man ak Ousmane Sow nga xam ne. lu ma am Tivaouane Peulh yàlla yàlla ci loxoom loxo jaarale. muy sama xarit. jaar ak ñaari ndey yi ca kër ga ak suñu waajur yi ak sama goro bu baax mère Camara ak sama ndijaay ñoom Papi Sack ak sama xarit nag sama rak di amet léegi rek la may woo naan ma émission bi dinaa ko teelu ba mu jeex tàkk ñëpp rek maa di leen ñaanal sëñ maam dinañ dellusiwaat ci yow nga nga nga nga nga soxna yeeg ñëpp ndax fi ne ni ñu ngi ci xaajalu émission bi daanaka danoo sàkku woon nga jàng ba ñëpp bég soppa yi gën a bég ndax ah, gars yi namoon nan la te nii nga toogee ni toogaay bi dafa jekk macha allah te buñ fa jógee da fiy bàyyi sa numéro bu ko defee soppe yi ndax programme yi fi mu ne nii tijji na bu jénnee ci kori gi dañuy doxal sant Serigne Touba yaa ngi fi te ku ne xam na ni sëñ maam mii ma dalal bàyyiwul ceet bàyyiwul tudd bàyyiwul mariage ndax kat dañuy wax ni bu fekkee ni danga bëgg a jël soxna ñu dem ca jàkka ja def farata nga wëlbatiku daal di def saayir sunu borom dogal ci nga am ci leer te tàmbali nga nga defoon farata nga ëlbatiwaat defaat ci saar te saar si tuddee woo ko dana woo imaam mu tudd ba noppi ba imaam dellu nga soog a xëcc sa saar daal di teg su boobaa nag la ca nosu ca bis ba di dugg gone ba loolu yow la te luy naqaree dindi lay doon ku ne xam na ni xasida yi buñ ci jëlee soxna mm-hmm. dalal gi ñu koy dalal ci biir néeg bi rek talibé yi moy bi ñu fay jàng sindiidi yoyu day dax li liy lore te toppoon ci do te doon xéet xeetu yaax ar lola ñak ko bu mu dëgër man léeg-léeg ma dox ba ci ak man nit ñi xawma dañu gëmentu xawma dal man dal jaaxle na sëñ maam Omar Cissé mi bu mi jël soxna gis nga ni ko gaay defal soxna si danaan ñëpp wara dox jëm ci kër gi waaw kuréel gi yëkkati xasida yi dalal ko ba mu toog loolu loolu loolu leneen la dina tax dina tax soxla si su boppam moom day xam ni am na góor yàlla moom dëgg la ndax yàgg naa dox yàgg naa gis bari na ay moroom yu amul lu mu am wala mu fekk ci jotaay yoo xamante yi nii moom luñ ko defal defaluñ ko ñooña loolu de day day day da koy da koy gën a soññewaat mu gën a xam ab Baye Fall bu amé ab tuddu wala mu am ab ab ab day day day wo sëñ maam tiorno wala sëñ Amar Cissé ni mm-hmm. tuddu fa yalla jang fa day sëñ touba yi tag fa yonenti bi ñu sante ko nak kenn ki nga xamante ni moy moy rasulullah nga xamante ni waji mom la mom lay tag saa su nek mom mm-hmm. kep le ñepp neub seen daraja ak seen maxama feñal basam mom rasulillah te ko ne bëgg na tawlo mu xam ab dombu gor tudde ko Muhammad wa leg rek bo mo wolé ku yori ki mu ñew ki ndax dina méngoo ah waaw loolu nan day xoolaat man dal bëgg na seigne mammi mi Tivaouane Peulh gi mu fi am ay programme bu ko defé wa kër gi du ko def en direct kër gi fi ni ñakul nii daara matériel ñing ci suuf dal lay amplifier tout sëñ maam jëlal ko ci bi. bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ngi leen nuyu bu baax. ñu ngi ziar bu baax a baax. jeex na yàlla yàlla ñu ngi ziar bu baax. baax. ñu ngi delloo ziar baax tur bi. Abdou Aziz Fall. Abdou Aziz Fall jàmbaaru Cheikh Ibrahima Fall la Baabul Muridiin. maa ngi leen di jaar. ñu ngi doon ziar ñaar ñaar mbokk tax yooyu. Mhm. amiin. ñu ngi leen di ziar bu wér. ñu ngi lay doon ziar bu wér. alhamdulilah wax dëgg yàlla dañoo bëgg lool. Mhm, mhm. parce que li ngay joxe macha allah. macha allah. Eh, tey li waral woote. teewloo rek moo ñu waroon. ndeysaan ndeysaan moom ku jëkkati kalimatul xaqe rek dootuñu mën a jugé ndeysaan ndeysaan wallaay te macha allah li ngay def si xol yi lay tàbb juste rek xam nga nee nañ kuy jàng moom daf ci yeew yeew di nekk ci xasida ak ci yeewul ne nekkoon ci xasida suñ tubaa daane woon ci yeew di nekk ci xasida ngay xam na yeewu na nekk ci nay làmb ci poosam di defal fii nekk ci xasida dëgg parce que yiw boobu yéen jaam bëgg nañ cee am moo tax sëñ Fallou Mbacke Balla ñu mel ni man Thierno da ngay affiché seen numéro ku bëgg barkeelu barkeelu moom laa koy wax léegi parce que parce que yiw bi ñëpp ci bëgg ndeysaan <laughs> bëgg nañ ngeen affiché numéro bu baax a baax parce que tey ñu mel ni ñoom Omar Cissé ñu mel ni ñoom Xaadim la tey da ngeen war a affiché seen numéro hmm. te képp ku bëgg lu mën a barkeel parce que ñu mel ni amuñu seen fay jant soo ñoo ngi yeew di nekk xasi hmm. ah, leen di sant bu baax di leen gërëm naa dégg neen lool ba ku bëggee ndeysaan am leen jàmm bu wér. ndeysaan bëgg nañ ci yow tamit. bu baax a baax. Eh, Abdou Aziz Fall. Abdou Aziz moom taalibe Cheikh Ibra la. Mm-hmm. muy ku baax. Mm-hmm. Eh, suñu xamante yàgg na. Mm-hmm. waaye xaw ma ko ci lenn lu bëgg Cheikh Ibra. waaw ndax dëgg yàlla moom jàmbaari Cheikh la laa a woowee sax man. muy ku baax yàlla na ko suñu borom kàttanal. may ko xéewal mm-hmm. wéral ay cëram mu àgg aw yoonam ci barkeb Sëriñ Tuubaa amiin amiin barkeb Sëriñ Tuubaa waaw loolu moom lu ma ci doole mooy suñu day jëm ju baax mm-hmm. taala mm-hmm. lu baax rek moo ko ñor wax dëgg yàlla ñun gis nañ taxawaayam ci lépp wax dëgg yàlla moog sëñ naar lay sëñ naar ñu ngi koy siyaar sëñ naar lay waaw moom it sëñ naar Baye Fall la ndeysaan Baye Fall sëñ naar <laughs> xel day fattu sama bis bi mu doon amal kër ga mhm. da nga ànd ceeg sëñ maam wallaahi wallaahi def lu doy waar kéemaan la kéemaan la damaa ñëw doon ko doon siyaare ci si Mouhamed Soxna mhm. ngir ndokkaleeg ci mhm. ma li ci gars yi man mën naa lu ko raw jàmbaar la sëñ naar ni nii ma ko waxee bi ma ko na. wallaahi wallaahi xam nga li ci gars yi man mën a ni ñu ay ndaw lii te moo na yëngu ci leen lu lu bari mhm. te bàyyi lépp dëgmal sëriñ bi mhm. loolu loolu lu yéeme la mhm. waaw ndaxte ñoom ñi ñaari saay bu ñuy dajee rek ci lu la ñuy daje daanaka bisam bi mu doon def fii ma baa jox suñu akasaag mu jàgg waaw noonu la ñuy ziare soxnaam soxna Faat Ndiaye moom it di suñu wëlër bu yàgg nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziare di ko ñaanal bu baax te yéenam ci sëriñ bi bu def ko ni mu ko bëggee parce que bu xasaay di ko di ko boole mo sëñ naar lay ak góor yàlla yëpp rek bàyyiñ kenn moom dañu amul sago ci moom waaw ah, loolu rek moo tax ñu ko suñu <laughs> ah, ah, eh, bi maa ko ci wettali yow àllarba yow lay dalal loolu dinaa ko ko wax sëñ Omar Cissé bu ko defee ah ngi noonu ñu wax rek waa Rési numéro mam tierno mi ma dalal mi ngi euh ma limal len ko rek bu ko dafé ngeen man ko ko officiel ci écran bi ndax gaay yi kat néna na danoo bëgg barkélu barkeelu ci addiye ji moy 77 480 99 73 moy numéro kat bi allo bismillah salaamaaleykum. aleykum salam Fallou. Mbacke Balla. maa ngi ñu ngi siyaare bu baax a baax Sam. kër Sam Kamara. maa ngi lay bëggee. Baye Sam Kamara. maa ngi siyaar. di am mbégte kontaan lool. Mm-hmm. mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee. Mm-hmm. waaye amul fu mu yem. Mm-hmm. ci jataay bi mu làmboo. ñoo leen ci siyaar leen ndokkali bu baax. ndeysaan jërëjëf sëñ Sam. jël nuyoo bi di ko teg sa loxo rek. ndeysaan jërëjëf sëñ Sam. nga jàllale ko ci ci plateau bi ñëpp. jërëjëf sëñ Sam. ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan jataay bi. Mm-hmm, mm-hmm. wax dëgg yàlla kenn koo daaloon ci ñi fi nekk rek. Mm-hmm, ci am mbégte rawatina nag nga boole leen. kon jaajëfal gi ci yow laa jërëjëf. Euh, yoo xam sa wàcc nga xam ne taab bi jii ma ci taab bi nag. Mm-hmm. jàppal ne man nga dégg waaye doog nga yépp. ndeysaan ñi nga andi teewlu fa soo yéen bokk ak yéen jataay bi. yëg nañ loolu yëg nañ loolu. xam naa dama booxante ba dugg waaye. Mm-hmm. leer na ma ne boox naa ñu bari. liñ mi na lool kay. ndax waa xat na lool. <laughs> xat na lool kay xam naa ci dara. ndeysaan. ñoo leen di siyaare si seen Omar Cissé. ndeysaan ndeysaan. xam naa li tax ma gën a jokk sax. ndeysaan fexe tàbb tàbb ci jataay bi di sëy na Omar daanele léegi hmm. ndax ñoom dañuy ay ndaw hmm. mënoon a defi leneen mënoon a nekk ci leneen hmm. ñu bàyyi lépp dëgg ma sëriñ bi jaare ko ci buntam xasida dama xam ci ñoom pastéef bu xam ci ñoom jaar jaar yoo xam ne buñ doonoon ko yow gaaw bàyyi danañ ne ci leneen dëgg la de ndax àdduna fekkee na leen nu ne mhm. ma xamee ci ñoom it lu bari mhm. ànd ak ñoom ku bari mhm. defandoo ñoom lu bari waaye lépp sëriñ de mu sax sàpp ak sëriñ bee xasida yi ma di leen ci ñaanal rek lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci xasida yi suñ borom defal leen ci lu koy ñor amiin bàkk sëñ Tuubaa di siyaare ku mel ne suñu Ablaay Sekk daayira si waa sa duur waaw mhm. dëgg la de moom ci am taxawaay la lool ak kolere walay walay dëgg la ko benn seen xawmar si sa xidmatul xadim mhm, mhm, jàmbaar la su ma tuddee ne ñu yóbbaale ñëpp ndax su day ndax bi laaj dëgg la am na ci sama kàddu sëñ saam mbégte mboolem ku di pour tànk rek rawatina nag yëpp nawet ci dëkk bi tuwaati aan ko la li ko sama kàddu dama leen di yóbbaale ndeysaan ndax ñu bari yàlla daf Mm-hmm. sama kàddu doy leen ci wet gu nekk. ndeysaan ma loo ma sama bopp waaye ñoom doyloo nañ ma. ndeysaan ndeysaan may ñaanal ñëpp rek. amiin taw feex tey rek tey fiir. amiin jaare suñu jëwriñu bopp nag bàyyi ma sàmm jabaay di ko ñaanal mu yàgg ci loolu te ànd ak wér. amiin di siyaare baax alaaji sëriñ Mamadou Diop al imam amiin amiin amiin ñoo ngi leen di ñaanal taw ak tey fiir xam naa si wàllu. waa Kébala. jotaay bi dama koy bañ a teelu bari waaye waaw woote gi mbégte rek la barke Seexul Xadiim yow boo xam ne na ma ko waxee woon am na ku muy taamulee mm-hmm. waaye amul fu muy yam ndax wala koy wax ni ndeysaan ñoom waaxum gileem xajut ci pantre dëgg la te kon ñaari jëmm yooyu rek mënoon naa ci wax lu bari waaye nag dañoo seq lu bari man de bu dama ñoom ci toog sant bu baax a baax kon noo ngi siyaare mboolem ku ñuy déglu rek ndax ku dégg suñ kàddu te tudduñ saw tur man mhm, mhm. naa am nga jàpp ne leen waaye déedéet suñ la tuddee yow rek yow mi nga xam ne yaa si représenté tey mboolem koy senees murit ci dëkk bi tey ci fii nga toog nii ndeysaan ndeysaan man damay jàpp ne ku fi xool gis la fi day jàpp ne moom jëmmam moom moo fa toog man moom laa koy jàppe wér na wér na kon su ma la nuyoo rek ñii naa mboolem koo xam ne mu ngi jaakaarloo tere bi di ko si ndeysaan wér na wér na <laughs> Seyna Amar ñoo leen di ndokkale bu baax jërë jëf am nañ mbégte lool lool lool jërëjëf sëñ Sam ku ma fàtte ku ne ci ñi may déglu nag maa ngi koy jéggalu baax jërëjëf jërëjëf sëñ Sam mbégte laay am bu may wax ak rawatina ñaari jëm yi du ma am yemukaay te it mbir mi day dox ci temps kon noo ngi wasalaamaaleykum wa wa barakaatu jërëjëf sëñ sëñ bi dafa daanaka lu bari la ci man moom moo xam man. Mhm. man mënuma wax ci moom ndax olof day wax ne puudar boo xee rek ñu ne terba tax. waaye sàmm bu ma waaye boo yàggee rek mu neex. Mhm. Mhm. maam. Sam daal man mënuma wax ci moom ndax daa daa sori ci sama xol. ndeysaan jàmbaar la sëñ Omar ak sëñ Tuubaa nga jëriñ tàbbi na ci jotaay bi ak eh, tàbbi mbégte nga mhm. ah, ni ko maam Thierno waxee rek. Mhm. maam day day jàmbaari Serigne Touba ci dëkk bi. Mhm. waaw ndax ko xam ne ñaari boo gisee muy dox. lu ñu wax rek jërul laaj fu mu jëm. xamal la ci liggéeyu Serigne bi rek ci lay dox. te it muy jàmbaar joo xam ne euh, maanaam géesewul mm-hmm. bàyyiwul xel kuy wax naka sudul noonu mm-hmm. moom saa yu xëyee mi ngi ci ndigal sëriñ bi di ci dox mm-hmm. tey di boole ndaw yi nga xam ne ñoo bokk nekk fii ci diwaan bi tey liggéey ci sëriñ bi wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk mi ngi lay bàyyi xel fu mu toll ndaxte da di boo dee jiit jiite ay ndaw maanaam soo soo teelee xaddi